wal asri inna al insana la fi xusri illa alladina amanu wa amilu salihaati wa tawasaw bilxaq wa tawasaw bisabri mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu lillahi wa rasulihi ci turu diine ji suñ borom wàccee mu ngeen ji diine ñëw wut mboolem diine yi folli leneen luy nuróog diine te du diine di nuyu ñëpp ni ko ma samba waxee ñu jiital ci sëriñ bi ak mboolem kilifa gi fi suñ borom def nga teew ci ndaje mi ba ci ñi woote bis bii ñi njëkk ak ñi mujj waaw dund gi xam ngeen ne doom aadama mbiram lu rëy la lu màgg la wuuteeg bindeef yu bari yu muy romb ci kaw suuf afa xasibtumoo annama xalaqnaakum abasan wa annakumoo ilayna la turjauna suñ borom nee na yéen doomu aadama ndax da ngeen a foog ne dama leen a sàkk rek tëggal leen mbëlde ngeen moom seen bopp lu leen neex def du ngeen dellu si fii ci man déedéet waral abu taalibin al makki wax na ci xuutul xulub bi mu ne doomu aadama bi war naa xam ne bis bu dund gi jeexee ruu génn ci yaram mu tàmbalee tari diir bi doomu aadama def ci kaw suuf day jàng bis bu jógee ci kaw suuf tàggook nit ñi tàmbalee wax ak malaayika tàmbalee tari tari bobu du jeex ba yowmal khiyamati ba bañi dekk taaj jor nga xam mu ndey jor wala chamoy ba ba nangu téré jëf yi waxtu timis ba bañi jégg sirat waxtu ge ba bañi naan degu kawsar ba ku nekk dugg kërëm digënté bobu yépp doomu adam mi ngi ci tari bu xasse ya, ba jéggi siraat nak, fofé le résultat jëf ci tambalé di feeñe fekk tambalina naa sax ca bañuy taaj balance ya su ko defee nit ki dañuy daal di seet ñaata at nga dund ci kaw suuf at di ñu daal di koy partager ñaata wër wër yi ñu partager ko ñaata fan bis bu nekk ñu partagé ko seet ñaata heure la heure bu ci nekk ñu seet loo ca jëf ñu taajal la ca téere heure bu nekk day am téere ab leetar bu taaje ñu xool la nga ca def jëf joo ca def danañ ca danañ la ca posé ñetti question bu njëkk bi mooy lu tax nga jëf lii lu tax nga jëf lii barab boobu kon ca lañ lay nattoo ci àtteb la nga jëf ca heure booba bu fekkee rëcc nga jàll nga ñu laaj la noo ko defe mooy kay fa faalta noo ko defe foofu kon loo jëf lu nekk dinañ la laaj ndax tege woon na ci xam ba nga koy def bu fekkee wér na nga jàll ñu laaj la ca ñetteelu laaj ba bi nga koy def ku tax nga def ko li man faalta at yi nu mu toll dañ koy xaaj weer yi nu ñu toll dañ koy xaaj bis yi nu ñu toll dañ koy xaaj seet heure yi heure bu nekk loo ca jëf jëf ju nekk ñu laaj la ca ñetti laaj lu tax nga def ko noo ko defe ku tax nga def ko fawoo jëf lu nekk nga tontu ca nga tontu ci ñett tontu yi ñu soga jall indi benen jëf benn par benn lolou mo waral penc ba dana lol ci ciw gaay dana yeex ci ciw gaay fekke ne jëm ji nak nenañ ko diggante kayfa ak lima ak liman buñ ko ci laaj rek ñu gis na barab bu rag ñewante ak aji tedd ji di xewul koo takk tax xam jóge ak fii fu ñu war a jëm ak bu ñuy dem yan bagage lañu war a bokk waaw da ngeen waxoon nag ne ñaari tomb ngeen bëggoon bu ñëwee ñu laal ci kam la suñ borom dogal muy ngeen ni bëgg ñu laal ay tomb lu aju ci dund kenn ci jëmm yu waroon Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Issa Diène xam naa ne nag moom diggante bi ñu waxee waxtaan wi ak léegi xat na ci ñun te it bagages yi ak ki ñu bind ak téere yi ñu yor day tasaaroo yi nekk ndakaaru yi nekk feneen waaw tax na foofu moom xam naa luñ ci mos rek ñu doyloo ko ba beneen yoon mu gën a yaatu ndax am na jëmmi jamono xam naa loolu ak lépp mutul ñaar fukki jege na ko sama ci Touba gisanteeg seeti sëriñ Abdou Salaam Jenn fekk booba am ñu ñooy faral di laaj ay laaj ci sëriñ Insa ma gisanteeg moom ma ko waxee mu ne ma moom yàlla dogal mi ngi ciy bind la yàgg na noppi te la yàlla dogale loola noppi it am na jëmm ju fekk ca ndakaaru jox ma ca joxoon ma ca ñetti téere ñaar yi mu ngi ko bind ci sëñ Insa benn mu bind ko ci sëñ Ngañ Tandini man sax fàtte woon naa ko waaye jëmmi jamono laay dox bu yàggul rek dégg ko teg sama waxtaan wax ni ci sëñ Ngañ laa ko waxtaanoon fekk fàtte woon ne mosoon naa ca waxtaan waaye nag fan yii yàlla dafa dogal téere yooyu ak documentaire yooyu ma seet ko seet ci mu réer ci biir kayit yi su suñu borom mooral luñ ci mos rek lu ngeen dégg ñu mos ko ci rek ñu doyloo ko ba beneen yoon waaye <laughs> Cheikh Ahmadou Bamba xam ngeen radiyallahu taala anhu mbiram dafa nuroog mbirum Muhammad alayhi salaatu wasalaam xarfan bi xarfin